Tapera W d'école au Sénégal booba oto amul waaye ñoom daal def nañu seen mbiri taalu bi def seen mbiri daara ba mbooleem bagage Seexul Xadim yi woon ci waxande yooyu ñu yenu woon te ñu bàyyi leen ci wagon bi ci Louga wekki wagon ba bàyyi leen fa saxaar ga dem ak ak yi ci kanam yóbbu say ko Xadim Ndar bi saxaar bi ne dër ci gaar bi fekk na ñoom ñu ne dojj ci gaar bi ak seeni bagage ci ndimbalu yàlla tabaraka wa taala nga xam ni sunu borom yàgg naa dimbali ay nitam yàgg naa dimbali ñi ko méngoo te doyloo ko te moom dafa yàgg di ñaan boo demee ci yenn xasidaam yi mu nga cay ñaan naan wajal fuaadi mit la baxrin saaxirin wa najjini min kulli shay'in da'irin wa xallini al yawma min al axyaari wa xallini taxliyatal axyaari lii doon na ko ñaan ci yeneen xasida ci biir di ñaan borom bi defal ko ak mucc waaye di ñaan borom bi defal ko ay xéewalam mu mel ni géej guy walla ngaan waaye mu ngi doon ñaan ni borom bi yàlla na nga nu musal musal ma musalal ma ci lépp loo xam ne dafay lore ak dafay delloo nit ginnaaw waaye yàlla lépp loo xam ni lu ma yelloo am la lu ma war a am la maa ngi lay ñaan nga defal ma ko yow te bu ma bàyyee kenn defal ma ko nag ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi jaahihi wa salli summa sallim alayhi wa jaalni bihi ka aylami wali yahab bi jaahihi futuhan wal turini ma axtarta li tasrihan wa habliya sukuna fi ma axtiyara lahu wali yakun bi xormati almuzammili nee na ci barke muzammil di yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax dafa bokkoon ci turam yi mudassir waaye dafa bokk ci tur yonent bi alayhi salaatu wasalaam muzammil mu ne ko di la ñaan ci turu euh, ki nga xam ni yaa ko tudde muzammil lii ma la ñaan nga di ma won li nga xam ni lépp loo ma tànnal te mu gën ci man nga di ma ko won ma di ko teel a xam di ko teel a yëg waaye te nga may ma dal ci lépp loo xam ni tànnal nga ma ko te mu gën ci man may ma ca dal ba ma koy am ma am ko ci amin wu rafet waaye yàlla na nga ma defal lii lépp luy orma lépp luy teraanga defale ma ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye wa salliyan alayhi bi taslimi waliya jut bi sidqi wa taslimi wa xabliya sixata wa kfini l marad yàlla lépp luy niroog feebar ak lépp luy niroog lu ñàkk dëggu ak lépp luy niroog lu ñàkk wer ak lépp luy niroog lu setadeeg lu ñàkk a sell maa ngi ñaan nga musal ma ci loolu te jox ma lépp loo xam ne nag aw yiw la lu sell la lu dëggu la lu rafet la ak wér la te musal ma ci lépp fegal ma bépp feebar waxabliya tey siira fi xayri arab xarat yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana kun lii xunaa wa kun maci min daa'ihi l yowmi ila mawti wa najjini gadan min al bala min al bala bi jaahi xayril aalamiina wadruda anni maa yajlubu li taradduda ne borom bi tabaaraka wa yow mii sama borom ma di la woo di la woo ci yaa banaa ñaata yoon yow mii sama borom yow mii sunu borom ñaata yoon maa ngi ñaan nga nekkal ma defal ma defal ma ci barke kii nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga defal ma ci barkeem lan tey ak ëllëg tey ak ëllëg sama dund ak sama dee nga musal kan, ya ma ci lepp luy nuro bala ci barke kan ci barke xayril alamin ki gën ci ñi nga bind ki gën ci mbinde fi te itam nak lepp lo xamni daf may indil deltu gannaaw yalla na nga ma dàqal loola wadruda anni yama yadlubu li ya taradduda lepp luy delo nit ginaaw ma ngi ñaan nga musal ma ci lola bu buma bu ma rabbana la tu axisna in nasina yàlla ñaan waxoon ñaan nga ci ah, ci ci ci in nasiinaa wa bu ñu jàppee mukk lu ñu fàtte bu fàtte bu ñu jàppee mukk ay njuumte bi jaaxi bi jaaxihi wa salli afdala salaatin julli yeeg sëlmal yi ya ca gën ak ya ca ëpp defarul ñu ko ci kan ci ngën ji mbindeef alayhi salaatu wasalaam wajaal nii bihi min al hudaat yàlla na nga ma defale ci moom ma bokk ci ñu jub tey jubal tey jubale tay jubalaté nga xam lu ne mën nañu ko jubal yalla nga ma boole ca ñooñu may jubalé wa yassir li kitaabali wa kammil jumlata mabtadatuhu min amalin yalla day ma ngi lay ñaan nga yombalal ma sétéré bi di alquran te borom bi daf ko ko defal ci tukkeem bobu ak ci demam googu tukkeem bobu ak demam googu la ne ñi ngeen ñi yaakaaroon dama and ak ñee ñu seen prisonnier ma wax leen tay ñi ma te waxtu wu nekk ñu répété war ko ma wax leen ñi ma àndaloon mooy rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi sama àndandoo sama àndandoo moo doon téere yàlla bii di alquran mu delluwaat ne ko wa yassir wa yassiril kitaaba lii yal na nga ma yombalal alquran defal ma ci say kéemaan wa kammil jumlata matadatuhu mbooleem loo xam ne tàmbali naa ko yàlla na nga ma ko mottali min amalin ci ay jëf awa yene ju rafet yalna nga mako motulil mottalil yu rafet yalna nga mako motulil wax ju rafet di yalna nga mako yegalal fam wara yek ndax alquran ci la yàlla waxon ni ilayhi yasaadu alkalimu tayyibu wal amalu salihu yarfauhu yàlla day neena jeuf ju rafet ju way jeuf moko yegalal bopam muy yek fam wara fam koy denc nga xamne dara du ko sikkel fa mu koy teg nga xam ne fu mu toll di ko yokk ak di ko multiplier ak di ko tripler mu ne waaye li koy yéegal esel bi yéegal jëf jooju nag esel bi yéegal wax ju rafet nag esel bi koy yéegal mooy jëf ju rafet ilayhi yasaadul kalimu tayibu wal amalu saalihu yarfauhu esel bi koy yéegal nee na mooy jëf ju rafet te yàlla nag moo tudd jëf ji de tudd yéegal gi de nee na jëf ju rafet ku ko def du ma ko bàyyi ak yow fii maa koy yéegal ba mu kawe ba mu kawe ba kawe ma dëkkee koo dolli muy wàcc si rek nag ci yow sallallahu alayhi wa mi yàlla yónni woon ci noonu dafa wax ci diggante boobu dafay jàng sar wu ñuy wax suratu naba i ba yegsi ci wa sama samaau fa kaanat abwaaban moo gestu saxaaba yi ni leen yàlla day ngi wax fii ubbeeku asamaaw ak bunt yu bari yu fay ubbeeku ndax xam ngeen asamaaw ñaata bunt la am saxaabatul kiram ni ko ah xana yow mi yàlla yónni nga dimbaliñ ci mune ne waxuma ñaata buntu la am de waye jaam bu ne am na fa ñaari buntu ci kaw asamaaw ñu ne ha Mune waaw jaam bu ne am na fa ñaari buntu mune benn bi ci la ay jifam yu rafet di yek di jaar di yek bu yegge ci lay duggé borom bi denc ko placer ko fum ko bëgg placer diko di nak diko di multiplier ko tripler nak jëmele ko yow mal xiyam muni ni lu la nit bañ bañ bañ ta ngay def ta yalla tax fo jaar bunt boobu du tëju mukk ba ba ngay faatu ndax lu bax lo def borom bi mo la ko fay yegalal te mom mo la ko fay sàmmal te mo lay fay nek fi ci yefi bopam yo xamni bokku bokkul li nga jëf la nga jëfa nga mu denc di la fay yene je nak ak di la fay acti bi nga ko defé waye du la ko fi joxe léegi de man na la koy dencal du yok rek ba yow mar xiyam waaye nag feeg yaa ngi jëf jëf ju baax jooju di wax wax ju baax jooju wax jooju di yéeg foofu bunt boobu du tëju mukk yàlla da koy ubbi di la yéegalal rek di yéegalal rek noo gën a def lu baax nag mu gën laa defal lu baax fii di la wutal ndax nee na moo gën a baax jaam yi dagam yonent la defar mu gën ci jaam yi rawatina moom mi borom bi tabaaraka wa taala lu baax loo def mu yéeg borom bi fay la fukkam nee na ci li gën a tuuti nenna su ma neexee nag ma fay la ay téeméer su ma neexee ma fay la ay junni waaye benn bu baax bi nga def daal ba ñu yéegalal la ko ba dencal la ko nee na ah bu baax boobu moom fu ma xëyee rek di la fay ay fukkam fu ma xëyee di la fay ay téeméeram adaafan mudaafa doon na wax ci alquran ni waqridullaha qardan xasanan lebal leen yàlla boor yu rafet yi wa yudaifahu su boobaa day dina ko fulandi di multiplier ba yag mu diko tripler motax tax mu ne kon jëf ju bax joju yek ilayhi sa'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfauhu A ah, Seyxul khadim ni ko de yalla nga ma yombalal téere bi waye yalla nga ma matalal lepp luma tambal yalla nga ma ko wa habli tartila wa tadabbura mu ne ko sa yu tambale won sax ab téere ab kamil tambali ko yalla nga ma dimbali ci yeggale ga mu yegg ndax dafa am ño xamni buñu tambalé kamil man nañu ko yor nan ko law law law law law muy dem nangami weer waaye nag alhamdulilah ne ca rek ne ca rek bul bayyi muk faqra umata yassara minhu nañ jang luñ ci man rek nañ ko ci jàng waaye khadim mom da fay ñaan borom bi tabaaraku wa taala mu diko defal wàccee yi ni muy wàccee kamil bi muy muy tegu ci yoon waaye itam nak muy organiser wu ba nga xamni ni macha allahu dina man nee na ko tadabbur ma di ko seetlu du ma def wàcceeg bismillahi rahmaani rahim maliki yawmi diin déedéet boobu la Seexul Xadim ni yàlla bu ko def bu mu ko defal boobu mi ngi ñaan yàlla defal ko tartiil audu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim toftale baat yi ni mu ko war a tudde waaye toftale aaya yi ni mu ko war a tudde waaye tudd mask yi ni mu ko war a tuddee tudd maxaarij ba na mu ko war a tudde loolu lay ñaan yàlla defal ko ko mabtadatuhu min amalin wa habliya tartila wa tadabbura alquran yàlla ngi ci wax naan fala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha loolu nag tadabbur boobu la ñaan yàlla defal ko ko te yonent bi ali salaatu Wasallam di wax ni lolou ngeen di def muy jëf ju rafet jooju judi yéeg yalla di len fay lenen di len fay lenen di len fay yenen di len ko fay waxtu wu nek mu len fay lu bax te dencal len lolou fofu mu ni lolou nit nu laa bëgg wala mu bañ la ba loxom mëna a fofu xana li fa loxom mëna a day moy mu ñaanal la moy ni ñaanal lolou yalla na sax di la ñaanal li ngay def ci lu bax yalla nako yalla nangu lolou day nit ki la ko ñaanal dem na participer ci buntu boba momit lamuy wax di fa def waaye kenn mënu koo tëj mu ni beneen bunt bi ci des moom alayhi salaatu wasalaam nee na beneen bunt bi ci des mooy bunt bi nga xam ni ci la sa wërsëg di jaar di ñëw bii lu baax li ngay def moo fay jaar di yéeg suñu boroom amul safaan bu muy fayee nit nag dencalul kenn safaan di la ko di la ko dollil ci safaan boo def boo defee sa safaan malaayika yi ko bind kii ci ndeyjoor kii ci càmmoñ sa yo tuubee ci tuub gu gaaw ñu dimbalé la duñu ko bind ñom dañuy xaar ndigal bu ñu nak nag nangami waxtu ye neex yalla te borom tuugul may di do li gëna a sakkanal suy bind mu bind bind waye benam bu bon boobu rek la yalla di bind la malaika yi di bind yalla amul lu ñaaw lu muy dolé kenn lu ñaaw nak mën naa yokkoo fenn rebb bi koy ak ni nga koy defee ak ki nga koy def ndax def lu ñaaw kat mën naa gën a bone ca béréb ba nga koy defe tey ni muy gën a bone ca béréb ba nga koy defe tey nga doon def safaan njuumte yóbbu la ci bakkan yóbbu la ci seytaane bu max la ba ngay def lu ñaaw waaye nga defe ko foo xam ne jàpp nga ne yàlla rekk la gis nga gaawantu tuub yàlla jéggal la ko ndax moom kat ku bari yërmande la te ku bari sutura la waye boko defé ci maa tey nag ci la bakkar ba di defe ko ci maa tey defe ko ci biti won yalla ni ko li ngay bawu mako tay bawu mako suwa jëm ma xam sax ndax nang koy téré déet man yoyu intéressé wu ba bu loo doomu adam ni yow doon fàttali wala mu di la war nga xamal ko ni ko man doo man duma ko ñuy war li may def maa ko tey def ba jëf ju safanu dana gëna boné ci jëfin wa waaye bu ko defé xëy budé nak bakkar bañ la ci doon bindal man na gëna a bakkar bañ lay bindal bakkar ba man na gëna a waye waaye ay yalla amul lu ñaaw lu muy dooleel kenn ci ay jëfam lu ñaaw man nga def lu ñaaw nak ci façon defeen wa ak fan koy defee ak nang koy defee ba lañ la cey bindal ci bakkar rëy lool lañ la ca nara fayé la nga ca nara am ci musiba kenn du xam nu muy toll yalla nañ ci yalla musal waaye motax mu ne ko kon yalla mi amul lu ñaaw lu mu yokal kenn yow mi def sa tok tok bo jéglo rek mu jéggal la borom bi nee qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamian innahu huwal ghafurur rahim borom bi moy jéggalaa kon bi moy yërëmaa kon bi gis nga nag jéggal googu muy jéggale ak yërëme googu nee nak arhamur rahimin rahimina mi ngi gëna yërem ñi yërem yërëmtalu ku yërëmtalu yalla yërem la ku bayyi safan daw ko def ko ni dan dan nga ko def nga def ko ni loo wacc woon ko nan nga def ko ni xalu safara woo jóggi woon dootoo ko tey mukk di ca delo sa tank borom bi neena koku kooku day ulaayika yubaddilu laahu sayyi'aatihim hasanat ñun yalla dana soppi seeni ñaawteef defal leen ko moy lu rafet borom bi dana fekk ki def jam bi defon toj toj ba jël jëlam bobu ci kaw suuf yalla du ko yegal fen. tax ay bakkar la borom bi du ko jégué fenn ndax borom bi ko lab la lab lay laal malaika yi di la reub ndax xet gu bon ndax ñi may nga tu jéglu raxasu ko ni borom bi dootuma ci delu mukk te amatuma joju yene mukk borom bi dina la jéggal waye lu ñaaw lolu la nañ ko soppi borom bi mom day soppi ulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasanat borom bi fay soppi ñaawteef yoyu ba mu melni musul ñaaw mu def mu sotti la ko muy rafet risque lay borom bi tabaaraku taala moko fi daq ndegam doom adam moy fek mbalit mu kenn soxlaat ñu genné ko kër yi di daw tonni ko sot sol ko ci luñu tak di daw xet ya di daw salté ba tak ko duggal fenn sanni diko pour touri ñu dem yobbu ko fenn di ko soppi di ko soppi di ko soppi ba ñu ko koo jëriñoo ñu defar ko tek teg doomu aadama di ko wat borom tabaaraku taala nee ma len leen ñi tuub te defatuñu lu bon te bàyyi nañu ko ulaayika yubaddilullaahu sayyi'aatihim hasanaat yàlla dana soppi seen ñaawteef yi def ko muy ay rafet rafet moo tax Seexul Xadim ni ko wa habliya tartiila wa tadabbura ilaa wafaati wa habliya zëf wa habliya wa habliya zufra mu ni ko yàlla li dig texe ak ak raw yàlla na nga ma ko may may ma nag alquran mii nga may ma ko alxuraan mi nga defal ma ci kéemaan alxuraan mi nga may ma ma man kee organisé wu di ko jàng ni ma ko war a jànge te lu ma ci tàmbali nga may ma ma yeggale ko ba ba may faatu ilaa wafaati waaye yàlla na nga ma ci defal texe bi kulli maa yusurruni lépp lu ma ciy bégloo ak di ci bégloo sa jaam yàlla na nga ma ko ci defal wa yanfaaw lépp lu ciy jëriñe yàlla na nga ma ko defal ci alxuraan wal tax mi nii tam yàlla na nga ma aar yaa rabbi an kulli maa la yan faaw lépp loo xam ne du jëriñ yàlla yan nga ma aar ci loolu musal ma ca loolu ba bu ma ko jege fenn lépp lu dul jëriñe du ma jëriñ keneen du ci jëriñu yàlla na nga ma fegal loola bi jaay fii ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye yàlla yàlla na nga ma musal ci lépp loo xam ne daf may wommat jëme ma ci euh, naka sudul noona ak fu mu mën doon mo xam ci àddina mo xam ci alakhirah luma dul jëriñ àddina duma ma alakhirah ñaari keur yi duma fa jëriñ yalla yalla nga ma dimbali ba fegal ma lolo te musal ma ci lolo waye yalla na nga ma eh, eh, soop ci lepp lo xamni ma ngay wommatu jëm ci mu jëm ci teraangay àddina ak teraangay alakhirah wana min kulli ma yasu fi daraini rabbi rabbi karaman yalla yow mi sama borom yalla nga ma defal teranga te musal ma ci lepp lo xamni lu ñaaw la mo xam la mo xam alakhirah lu nyawal ci adina ak lu nyawal alakhirah yalla na nga ma musal ci lolo borom bi tambali nako ko nangule fofa borom bi yag nako ko nangul waye ci tukem bi kéemaan yu ri ri ri ri borom bi daf ko ko ci defal nangul ko ci li nga xamni mom la doon sakku te ci kanam dina ñew ne li nga xamni mom la doon sakku mu delu ne ko ya rabbana ay sama borom salli wa sallim abada julli yeeg sëlmal yi de mang koy ñaan te nga defal mako ba faaw nak jëf ko ci kan ala imamil mutaqina ahmada ki nga xani moy njitul way ragal yalla yi ki nga xani moy njitul way ragal yalla yi di sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam te yalla nga tuddé ko ahmad ci alquran yaati min ba'di ismuhu ahmad yoyonte yalla aisha waxo ya bani israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'di ismuhu ahmad فلما bil بالبينات قالوا هذا ظهر mubin. Sayyidul Khadim ni ko yalla yalla nga ma dimbali ya rabbana salli wa sallim abada ala imamil muttaqina ahmada akan wa alihi ak ñoñam nak ak wa kërëm yépp wa sahbihi ak sahabaam ya ñoko toppoon ñépp nak te gëm ko al kiram ñi nga xamne ñoo doon ñu tedd ña ñu tedd rek ko ko wa najini yalla yalla nga ma musal bihi minal malam yalla nga ma musal ci lepp lo xamne da fay indi yarange lepp lo xamne dañ ma nan so yegon do ko def ak lu taxone nga def li neena yalla yalla nga mo musal ci lola waye ci barke yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla nga ma nangul te jebal ma te jox ma bepp tambali bu rafet ak bepp mujj gu rafet ak kep ku tambaleti alquran yalla yalla nga ma ca jox ci tuyaaba ja yàlla nga ma ca may ma ngi lay ñaan ci tuyaabay kep ku tambaleti alquran ma ngi lay ñaan ci kep ku jeexalati alquran ma ngi lay ñaan ci kep ku képp kep ku nekkati ci digg alquran yalla yàlla nga ma méngale lolo ta may mako te musal ma ci lepp lo xamni luy ndirok ci agante la bamay wara sagane alquran ba kuma xam sax di sagane ak bepp bepp mbolom ayib ayib yeb mbooleem ayib te yi yàlla nga ma ci musal mbooleem luy yak mbooleem luy ayibalit yàlla na nga ma ci musal luy ñak solo ak lu wul nit fen yalla nga ma musal ci lolo waye yalla nga ma saxal te yombalal ma te jappale ma ci te dëgëral ma ci lan dëgëral ma ci ma liggéeyal Moustapha alayhi salaatu wasalaam nga dollee ma cay teranga wa najjini bihi min almalam wa aqbal bi jaahihi bi jaahitihi albidaaya wa habli man yaqra'uha wilaaya wa najjini bihi min alxufuli wa jumlati alayubi walfuduli wa sayyarani biha xadiman lilmustafa wa zidni takrima Tukaruba sana manga jangale gita dobuje do faiwa Nga élève de ton luchi examen linga sala am na fita mugana La sur au Sénégal vas sur Ecole au Sénégal Où que tu sois, ici au Sénégal Tu peux facilement avoir accès à au Sénégal